sheytaan rajim bisimilah rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eh, niñ koy amalee at mu nekk ginnaaw bu ñu leen ziyaare di jiital ci ziyaar boobu sëñ Cheikh di Mokhtar Mbacke di ko ñaanal suñu borom yàgg fi lool te mu ànd ak wér eh, di ñaanal it jëriñam ji di sëriñ Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir suñu borom yàggal ko fi te wéral ko. Euh, ñu fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne saa su ne dañ koy amal bu weeru tedd wi nga xam ne teru na muy weeru safar nga xam ne ñuy dëggamal bés boobu nga xam ne mooy le 18 safar di bés bi nga xam ne Serigne Touba Khadim Rasoul euh, amaloon na ci tukki boobee nga xam ne dafe woon na ko foofee ci Gabon euh, ñu koy màggal fépp ci àdduna bi rawatina Touba ci Sénégal waaye comme ni ngeen ko xamee saa ne bu bés bi dikkee Euh, diaspora bi fépp foo xam ne daayira Serigne Touba ma nga fa euh, taalibe yi dañuy daje ngir màggal bés boobu. Euh, loolee tax na ba at mu nekk ma Mafatul Bichri TV di ci ànd ak yéen ginnaaw ni ngeen ko xamee Mafatul Bichri TV di télévision boo xam ne dafa nekk au service de lislaam waaye nekk tamit télévision au service te Xaadimu Rasuul loolu waral tey suñu teewaay fii ci dëkk bi ñuy wax Valenciennes. ngir fas yéene fee daje ak fédération bi nga xam ne moo nekk ci nord de la France euh, fédération boobu nag ay daayira ñoo ko seq ndax euh, fédération boobu daayira Touba Lille mi ngi ci daayira Touba Le Havre mi ngi ci daayira Touba Caen mi ngi ci daayira Touba Rouen mi ngi ci ak daayira Touba Valenciennes kon tey ñu ngi fii ci Valenciennes Euh, fédération boobu nag ñoom niñ koy defee ci France ndax euh, ni ngeen ko xamee muy sud de la France muy est de la France muy nord de la France muy ouest de la France fu ci nekk dañuy daje euh, def ay fédération jël benn dëkk ngir amale fa màggal ga ren gi nag fédération du nord fas yéene daje foofe ñuy wax la Havre ngir màggal bés bi nga xam ne mooy le 18 safar war a janook le 8 novembre 2017 looloo waral tey suñu tàbbi ci dëkk bi ñu fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Thiam nga xam ne moo nekkal ma Fatou Bichri TV fii ci diwaanu euh, Valenciennes ci nord de la France ngir rek euh, dégtal leen li nga xam ne fédération bi noonu lañ fas yéenee waajal màggal gi euh, ci programme bi nag dinañ jàkkoog ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi muy wàllu organisation bi muy wàllu finance bi waaye jëwriñ ji nga xam ne it mooy jëwriñu fédération bi ngir seq ak ñoom ay waxtaan ñu dikkal ñu ci ana nan la ñu waajalee bés boobu nga xam ne moom lañ dëgmal waaye itam dinañ taataan ci kuréel fédéral gi nga xam ne eh, moo fi nekk ñoom itam ñu fësal seen yéene ana ñoom it taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ngir waajal eh, bi di xam ne mooy màggalu Tuuba nga xam ne xasida yi di ci lu am solo ginnaaw loolu itam dinañ seq ak ay waxtaan boroomi xam-xam ñu dikkal ñuy rek indi ñu ay leeral ci bés bi nga xam ne mooy bésu le 18 safar ana lan moo sabab tukki bi ak euh, taalibe nan la war a taxawee ci bés bi nga xam ne mooy bésu màggal ak Tuuba kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi duñ def rek lu dul fas yéene ànd ak yéen euh, foofee nga xam ne fala fédération bi war a daje tey ci salba ngir rek digtal leen li nga xam ne mooy waxtaayu màggal bi nga xam ne fédération nord de la France euh, ñi ngi koy amal jëm ci bés bi nga xam ne mooy 18 safar di la 8 novembre 2017 kon ñu àndak ak yéen ba ci kanam rek digtal leen li nga xam ne moom lañ fa fas yéene jëlee. fama fu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme euh, niñ leen ko waxee rek ginnaaw bi nga xamee ni tàbbisi nañ ci dëkk bi ñu koy wax Valenciennes euh, mu nekk ci nord de la France ñu leen di fàttali ne rek ñu ngi toujours ci waajtaayu màggal gi euh, muy fédération bi nga xam ne moo nekk nord de la France ñu leen di fàttali ne daayira yi ko seq mooy daayira Touba liil Touba Valenciennes Touba camp Touba Le Havre Touba Rouen ak euh, Touba Amiens euh, mu ñoom it ñuy def euh, saa su ne bu màggal gi ñëwee ñu daje ñoom ñëpp ngir jël benn barab daje fa ngir màggal bés boobu di le 18 safar ren ñu fas yéene ko amal le huit novembre deux 2017 ñan ñu fas ko yéene amale fee ci Le Havre. looloo waral tey ñu ñëw fii ngir seq ak waxtaan wi jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi. ngir ñu dikkal ñu rek ci waajtaayu màggal gi eh, ni nga xam ne noonu lañ ci doxee eh, ci njiitu jëwriñ ji Serigne Ousmane Ndiaye eh, xaj na moom dafa am ngànt moo tax teewu fi waaye ki nga xam ne moo yor wàll communication ak relation extérieure di moo du Faye dina jël ay kàddu indi ñu ci ay leeral ginnaaw loolu itam dinañ seq waxtaan ak euh, jëwriñu kuréel gi sëriñ El Hadji mu dikkal ni moom itam ci li nga xam ne mooy kuréelu xasida gi ana ni ñu waajale liggéey boobu gis ngeen léegi prestation bi nga xam ne def nañ ko fi muy lu ama am solo ci wàllu màggal gi ginnaaw loolu itam dinañ seq waxtaan ak euh, sëriñ Baba Niang moom moom itam mu nekk fii ci Touba Valenciennes mu fas yéene dikkal rek ci ay tomb yu gàtt ana nga xam ne mooy sababu màggal gi ak eh, ab murit nan la war a waajale bés bi kon duñ def rek eh, lu dut eh, jàkkaarloog Serigne Ousmane Serigne Modou Faye Mafaatihul Bichri TV ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la dikk ak yow rek ci li nga xam ne mooy fédération nord de la France jori ñu bëggoon rek nga tënkal ñu ci wàllu fédération boobu ndax mën nga ñoo dikkal tuuti ci origine bi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 xëy na du ñuy tënk rek ci li nga wax jëwriñ euh, di fàttali nag nag kàddu yi kàddooy yunnu yunnu yunnu jox la ngir ñu war koo taxawee mu jugee ci jëwriñu fédération bi di sëriñ Ousmane Ndiaye. Euh, du ñuy tënk rek maanaam fédération bi lu jiitu ñu koy tënk amoon na daanaka ville bu ci nekk ci nord bi nga xamante ni bii muy Rouen Touba Rouen wala muy Touba Amiens wala muy Touba euh, Lille. saa su ne rek du waxtu wi jotee muy màggal kenn ku nekk da nga daan màggal ci sa barab bi nga xamante ni bii nag euh, at yaa ngi wéy ñu xamante ni bii siriñ Touba ba muy woote dani euh, ñëpp la woo jullit yëpp la woo alwara la wax nga xam ni loolu ñun ñëpp dañ cee bokk rawatina nag ñun ñi nga xamante ni bii danoo féetee ci diaspora bi li nu war mooy ñu booloo ndaxte dañ ni booloo mooy doole. ba tax na it ñu gis ne xëy na yii yeneen fédération yi di doxe nga xamante ni bii am na ci fédération est bi am na tamit ci fédération sud bi ak centre bi ak it euh, ci waa euh, mbokki Paris ni ñuy doxale ñu ne it xëy na it euh, ñun tamit fii ci noor bi duñ taxawee woon boobu taxawaay dina am solo lool moo taxit daanaka ñu daal di taxawee taxawaay boobu nga xamante ni bi depuis année 2010 si jàpp 2011 ñu ngi bokk di def genn ak màggal di yëkkateendoo di tegandoo mbooleem loo xamante ni bii ñu ngi koy jëf jëm ci yoon wi dañ ciy àndandoo ñun ñëpp ngir jëmmi sëñ Tuubaa rekk tax ndax moo nu fi indi te moo nu fi boole te it mission bi ñuy dox mooy ànd gi nu ànd ak moom mu jël nu indi ñu fii ñu war ko ci liggéeyal kon ñu bàyyi xel ni euh, li nu fi indi du ñun Serigne Touba moo am sababu ñun ñun ñëw fi di ko ci liggéeyal kon loolu tawféex mënu ko weesu kon ci tënk rek ñun niveau euh, fédération bi ni muy ni muy ni muy tëdde mooy dafa am jëwriñ joo xamante ni bii moo ko jiite muy Serigne Ousmane Ndiaye féete ci Touba Le Havre euh, ginnaaw su bi it euh, am na tam ay commission yoo xamante ni bii tënk nañ ko commission yi am na commission culte commission culte ak lu jëm ci wàllu njàngum xale yi nga xam ni daanaka moom euh, rôle am mooy euh, dina luy wàllu culture rek moo koy sabab moo koy moo koy moo koy yor tamit di ko doxal maanaam euh, lu jëm ci wàllu programme màggal bi ñoom ñoo koy daal di définir lu jëm tam ci thème conférence yi ñuy war a conférence moo koy définir saa suñu waree it ak it ci màggal it mbooleem lu jëm ci wàllu affiche yi ñu war a am ci màggal gi ak it euh, contenu bi ak yëpp rek ñoom ñoo koy définir ñoom mission commission culte seenub liggéey it bokk na ci it euh, saytu njàngum tu tànk yi ci ville yi ndaxte amaana ku ne xam na dëkk bi ñu nekk ni mu demee te daanaka euh, du la fi suñu borom dimbaliwul lool xëy na sànq fi mën naa yomb lool xëy na nag moo tax ñu taxawal commission boobu nga xamante ni bi am na ci commission culte ci ville bu nekk boo xamante ni bi moo fédéré commission kon culte bi nekk ci fédéral bi nga xamante ni bi liggéeyam kon li ci ëpp solo mooy euh, dina saytu tamit lu jëm ci njàngum xale yi ak njàngum tamit euh, mag ñeeg mboolem ko bëgg a jàng ak it contenu njàng moomu lan lay doon ci nga xamante ni bi tey ku war a firi iji di nga ko fir ku war a euh, tàmbali jàng alxuraan di nga jàng alxuraan ko war a it euh, jàng xasida it di nga jàng xasida amaana bari na fi tey ñoo xamante ni bi ci dëkk bi leen juddoo yaroo fi màgge fi waaye mokkale nañ fi alxuraan te ginnaaw loolu commission culture bi rek moo taxawee taxawaay boobu kon loolu tam commission la bu bokk ci fédéral bi ginnaaw commission boobu it am na beneen commission muy commission sociale nga xam ni moom euh, li ko tax a jóg mooy maanaam di dox ci wàllum social ndaxte daanaka du ñuy xool lu ëpp ci euh, mbokku taalibe yi euh, ñenn ñi ay ay ndongo daara lan maanaam ay étudiant lan nga xam dañoo jógee dëkk ba ñëw ñenn yi nit xay na parfois suñu borom day dogal seen loxo du jot seen ginnaaw commission boobu li ko tax a jóg mooy maanaam di xool mbokku taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe ñu koy def ci sutura di leen dimbali te yàlla rek tax ak jëmmi Sëriñ Tuubaa ji nga xamante ni bi ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo Euh, beneen commission bi amit mooy commission patrimoine commission patrimoine moom rôle mooy mboolem lu jëm ci wàllu Euh, wàllu conservation maanaam bokk na ci lu mel ni caisse de solidarité nga xamante ni bi taxawal nañ ko caisse googu it li ko tax jógit daanaka day xaw a dem sax ci social maanaam tey yàlla tere ñaanunu ko yàlla waaye du fi mbokku taalibe euh, wàññee ko woon ñu mën a xool nun koy mën a euh, waajale ba mu dem dëkk ba maanaam mu mu dem Sénégal commission boobu ki ko jiite di Serigne Pape Bara Gueye féete ci Touba Rouen Euh, li ko tax a jóg moom comme ni ma ko waxee léegi rek maanaam ñëpp lañ ci woo ñu jàpp ci liggéey boobu nga xamante ni bi at mu jot dafa am ab sas bu ñuy joxee yàlla tere waaye du fi mbokku taalibe wàññi rek ñu man koo mën a euh, waajal ba yóbbu ko mu daal di dem euh, Touba. leneen li doon liggéeyam it mooy kër Sëriñ Touba yi nga xam ni taxawal nañ ko ci France yëpp nga xamante ni bi biñ ci njëkk a taxawal jamono yi moo doonoon kër Sëriñ Touba bi nekk Marseille nga xam ni booba suñu borom taw feexeele nañu ba liñ ci waroon mat na Euh, fi ñu ko war a ubbiwaat nag jamono yi mooy ci fédération est bi nga xam ne ñoom am na lu ñu ci jotoon a dajale léegi ñoom ñu ngi jëmalee kon sunu liggéey ci wàll woow mu ngi jëm kon ci fédération est bi xëy na du soobee suñu borom du matee ci fédération est bi ñun waa nord bi suñu borom mën na noo taw feex xëy na du boobaa it ñu daal di jëm ci wàllu woow it du ko defee niveau euh, fédération nationale bi mën noo dimbali ci wàllu woow léegi it euh, ginnaaw commission yooyu am na commission relation extérieur ak communication nga xamante ni bi euh, man lan tegandi ci ci bopp bi euh, lii rôle rek mooy mboolem liggéeyu Serigne Touba bi rek euh, fexe ba jaam ñëpp jot ci te xam ni Serigne Touba li li ko tax a jóg rek mooy sunu ko teddange àdduna ak alaaxira sunu mucc àdduna ak alaaxira ndaxte bam ne ba muy wax euh, dani euh, li ma wax léegi rek maanaam euh, sa naf an bi laa dararin maa yor ay njariñ te di ko joxe te duma ma lor ku yàlla bind kon yaakaar naa ne kuy jariñ te doo lore yaakaar naa foo wootee ñu wuyu si la foo jëm it ñu fekk la fa ginnaaw bu loolu weesoo it ñu ni jëm ci wàllu màggal gi it daanaka dañuy def ay réunion réunion yi maanaam duñ lu jiitu màggal duñ génnee màggal rek dan daal di fasaat euh, taxawaat ci laxasaay yi du ko defee it euh, weer wu jot ñu daal di tàmbaliwaat liggéey bi maanaam weer wu jot euh, dañ daal di def benn réunion boo xamante ni bii jëwriñ yi nekk ci ville yi yëpp ñoo ciy daal di daje du ñu ñëwee it ñu daal di saytu liggéey bi fu mu toll jëm ci màggalu déwén gi. kon jàpp naa ne tey duñ màggalee tey ca suba ga rek màggal ga ga ca topp uh, dañ koy daal di door nga xamante ni bii it sas yi kenn ku nekk ci ville bi nga nekk yaay xool noo koy mën a uh, taxawale tamit définir ko du ko defee uh, mbokku taalibe yi man cee man cee man cee man cee tàbbi incha allah kon noonu rek la demee du ko defee it duñ demee ba dëgg mal màggal gi nga xamante ni bii ci wàllum organisation dina laaj lu mel ni ay commission du boobaa it ville bi nga xamante ni bii mooy organiser da daal di def ay commission boppam nga xam day am commission organisation ñooy jëm ci wàllu cuisine beeg lu jëm ci wàllu logistique bi ak lu jëm ci wàllu salle bi ñu koy defee ak yu demee noonu commission culture bi tamit rôlam comme li ma waxoon léegi rek moom it daal di jëm lu jëm ci wàllu wàccuwaay bi programme bi ak it njàngum xale yi ndaxte loolu it lu mu bëgg a fësal la du ko defee euh, mbokku mbokku taalibe yëpp xam ni dëkk bi mën nga fee nekk jaamu sa borom liggéeyal Serigne Touba. waaw du ko defee it euh, li euh, solo euh, fédération bi rek mooy ñu ànd booloo ngir jëmmi Serigne Touba rek tax ndaxte mbooloo mooy doole. jërëjëf Serigne Modou ci leeral yooyu nga xam ne indi nga ko ndax daanaka mën naa ni sax ñaareelu laaj bi dugg nga ci mooy li nga xam ne noonu la fédération bi di taxawee ci waajtaayu màggal gi junj nga ko léegi ci biir waxtaan wi maanaam saa su màggal jeexee rek ci ëllëg sa lañuy tàmbaliwaat liggéeyu màggalu déwén. muy liggéey boo xam ne dafa am solo euh, ak leeral yi nga xam ne indi nga ko it ci ni nga xam ne noonu la fédération bi di doxee euh, xaj na rek euh, ci beneen tënk bu gàtt rek xanaa nga dikkal ma tey mel na ni ñu ngi ci la set safar doo dee xool li ci des bareetut ndax mën nañ ne bu weeru safar tero rek màggal diggu na kon tey fan la fédération nord bi toll ci bés boobu nga xam ne ñu ngi koy dëgmal muy euh, le 18 safar di bésub màggal gi te ngeen fas yéene ko amal foofee ci la Havre tey ci wàllu logistique euh, wàllu maanaam lépp loo xam ne lii mi ngi jëm ci wàllu finance wàllu culture bi comme ni nga ko waxee ana fan ngeen ci toll ci ci waajtaay woowu. dañuy dollee santati Serigne Touba rek ndax xëy na taw feexee la nañu daanaka fii may wax ak yéen ñii daanaka euh, lépp jàppandi na alhamdulilah. ndaxte duñ koy xool ci wàllu Havre ci nga xamante ni bii ñoom ñooy organiser màggal gi ren li ci ëpp solo mooy euh, saal bi nga xam ne fa lañ koy defee suñu borom def na ni tawféex am na ci ndaxte am nañ ko ci lu dul ñu ñu joxe dara loolu nag li nu ko may mooy fédération bi dafa am ay kayit. maanaam danoo am ay kayit doon association euh, boo xamante ni bii dañuy yëngu ci wàllu culte wàllu culturel ak wàllu social nga xamante ni bii ni ko amee ci fédéral bi noonu lañ ko amee it ci yeneen ville yi ville bu tu nekk am nga sa am nga sa am nga sa euh, sa kayitu association boo xamante ni moo lay may tey doo bëggee saal mën nga ko am ci lu dul ngay euh, fay lu bari kon daanaka kon côté saal suñu borom taw feexeele nanu am nanu ko lu jëm ci wàllu logistique it daanaka macha allah am nan ay oto yoo xamante ni bii moom day nekk à disposition euh, ci ñiy ñëw ca barab ba day na jàppandi ci ñoom. yeneen ville yi it daanaka ville boo ci jël rek moom it euh, fa tabaarakallaa ñu ngi organiser wu organisation boo xam ni bus di dinañ fa jóge ak oto yu ndaw yi jëmale Touba Havre incha allah lu jëm ci wàllu commission culte bi ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi def liggéey bu am ndaxte ba safar gi duggee ba tey saa bu ñu xëyee dina am benn kaamil euh, addiyalee ko Serigne Touba loolu tawféex la ba nga xamante ni bii fii ak màggal gi du soobee Serigne Touba dinañ am lu toll ci fukki kaamil ak juróom du ko defee du ca bis baa it mën a amaat ci ay kaamil. Euh, dolli ko ci def ko addiyaay Serigne Touba incha allah leneen li ci des it mooy euh, li nu wax léegi rek ñoom définir nañ seen seen programme jëm ci màggal gi définir nañ tamit thème yi nga xamante ni bi moo jëm ci màggal gi ren li ñu war a gën a waxtaane muy ci ñaari conférence bu ci njëkk bi di bu français bi ak bu wolof bi bu français bi ci tënk rek mooy dañuy ñëwaat ci yoonu Serigne Touba li ci bokk ak li ci bokkul ndax ba muy wax dañi lil Moustapha nawaytuma yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu nga xam ni moom ba muy wax loolu dañi dafa ñëwaat lañ ngir yeesalaat yoonu yonent bi alayhi salaam kon ñëwul créer loo xamante ni bii lu bees la wala mu tam mu jël yoonu boppam déedéet kon loolu day jar ñu leeral ko xamal ko nit ñi ñu xam ko daanaka kon ci loolu rek lay lay tënku ndaxte bari na tey e, xëy na lu ñuy wax ci yoon wi te bokku ci wala it loo xamante ni bii ñu ngi koy jagleel yoon wi wala di ko njort ci yoon wi te amu ci kon leeral yooyu du soobe suñu borom dinañ ko indi kon du soobee yàlla ci bisu màggal gi. leneen li amit muy ci wàllu conférence wolof bi dinañ indi lu jëm ci axiru zaman di mujjee jamono. ñëpp xam na ni jamono ji fi nekk nii suñu borom mu ngi ñuy wan ay ay kéemaanam mu ñuy wan yoo xamante ni bi war nanoo toogaat xalaataat xam ni euh, àdduna kat jeexu jeexutit li ci des bareetut te it euh, yu ci baree baree bari yonent bi waxoon ko agsi nañ ci kon dina laaj kon ñu daal di defaat taxaw seetlu saytuwaat tamit xoolaat suñu bopp euh, soññaat suñu bopp te xam ni li nu mën a li nu mën a li mën a tax ñun ñu raw tey ak ëllëg mooy topp njàngaleem Serigne Touba topp njàngaleem yonent bi topp njàngaleem tamit mi nga xamante ni mooy suñ mag ñu baax yi nga xamante ni loolu rek moo ñu mën a euh, jàllale ëllëg kon du ma juumut foofu lan toll ci wàllu wàccaay yi ci wàllu finance it daanaka euh, macha allah suñu borom ñu ngi ñu ci defal tawféex daanaka ville boo ci jël xëy na sax euh, li nu jotoo kii ci koppar macha allah takku na lool wax dëgg yàlla jëm ci bis bi. leneen li ci am rek mooy du soobee yàlla ginnaaw màggal gi le 16 novembre wala le 14 novembre. ci la ñuy daal di jël addiya ji nga xamante ni bi moom la ñuy yóbbul euh, Cheikh Sidil Mokhtar nga xamante ni bi ci wàllu fédération nationale bi ñëpp ñoom ñoo koy taxawee du boobaa lañ koy daal di jël daal di koy yóbbu incha allah taala kon di ci woo mbokku taalibe yëpp rek ñi ci jàppandi ngir mën a dem Touba du ko defee ñu yóbbu euh, addiya joo jébbal ko euh, Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke incha allah. jërëjëf moo du Faye ci leeral yooyu nga xam ne indi nga ko ci lu jëm ci wàllu fédération bi. Euh, dikkal nga ñu ci origine bi ak ni nga xam ne noonu lay doxee waaye itam dikkal nga ñu ci lu am solo muy li nga xam ne dañ koy dëgmal muy màggal gi ana fan ngeen ci toll ci wàllu waajtaay boobu. waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, sëñ Modou euh, sant nañ la bu baax ci leeral yooyu nga xam ne indil nga ñu ko lépp jëm ci wàllu liggéeyu fédération bi. xanaa dañuy ñëw rek seq tam waxtaan ak euh, ki nga xam ne mooy euh, sëriñ Saliou Sène ci ndigalu jëriñu kuréel gi nga xam ne mooy sëriñ El Hadji euh, fas yéene dikk ak yow rek ci li nga xam ne mooy liggéeyu kuréel gi am na sëñ Saliou tey kuréel gi nga xam ne mooy kuréel fédéral fan la toll ci waajtaayu màggal gi ak nan ngeen ci waajale aouzu billahi mina sheytaani rajim wa inni auzu bika wa zurriyataha mina sheytaani bi rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun barke Borom Tuuba waa ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel tamit ci teewaay bi xanaa ngir tontu ci laaj bi ngeen ñu laaj rek te mel ni bu dee li jëm ci wàll kuréel fédéral moom daanaka ñu ngi ci wàccaay màggal gi ndax ngeen ko gisee ci tey jii ñu ngi woon ci répétition boo xam ne waa waa kuréel gi yëpp ñoo ko seq te kuréel gi moom daa di nekk loo xam ne ville yi ci fédération bi yëpp kenn ku kuréel gu ci nekk. daa am ñu koy sélectionné ngir boole leen ci kuréel fédéral bi ko defee kuréel googu moom daanaka ci wàccaay bi màggal gi ñu ngi ci woon depuis màggal gi jàllee daanaka ñu ngi woon ci liggéey bi te répétition yi tamit bu dee li jëm ci wàccaay ni ñu koy amalee mooy bés dañuy dañuy xool daa daanaka li jëm ci weer bu ne wala bu baree bari ñaari weer ndax daanaka boo xoolee ñu bëri ay étudiants lañ te it jàppandi gi darul demee noonu yenn saa yi ñii dañuy jàppandi ñii duñ jàppandi loolay tax dañuy xool daal bu bëree bëri weer bool ñaari weer ñu mu gën a jàppandi ci mbokk taalibe yi rek ñu tënk répétition xool ban ville ci ñi seq fédération nord bi ban ville ci lay gën a jàppandi ñu amalee fa répétition bi ñu tënk ren bii yoon nag bisu tey ji daanaka balaa seen fii lañ tënk ne fii lañ ko defee moo tax kuréel gi waa kuréel gi yëpp dañuy jëm si fii te bu dee ci wàllu répétition bi daanaka bis bi yëpp la jël ay tàmbali ay 10 heures 11 heures la ñuy tàmbali. te nag dañuy répété ba ay 17 heures ndax comme weer ba weer la ñuy répété wala ay ñaari weer yenn saa daanaka ngir dajee lu bëri tënk ci day da koy jar daal te it ndegam diggante bi soree na daanaka am na benn groupe bu ñu defoon ngir mbokk taalibe kenn ku am lu mu seetlu ak lu muy laajte waat ñu mën ko cee dugal ndax bu fekkee ne dangay ngay xaar weer ba weer ngir répété daanaka dana am sooxe gu muy indi ci liggéey bi. daanaka bu dee ci tënk daal te loolu lañ toll ci wàllu liggéey bi ngi ñu ngi ci liggéey bi daal te di ñaan sëñ bi doole ñu taxaw rek. jërëjëf euh, sëñ Saliou ci leeral yooyu nga xam ne indi nga ko mu jëm ci kuréel gi moo kuréel fédéral comme ni mu ko waxee nga xam ne euh, daayira yi nga xam ne ñoo seq fédération bi fu ci nekk dañuy jël ci kuréel ga sélectionné ci ay nit ñoo ñu doy doon kuréel fédéral comme ni nga ko waxee it ngeen di daje saa su ne benn weer wala ñaari weer ngir tënk def ay répétition kon comme ni ñu ko waxee léegi rek ñu ngi tey ci la set safar daanaka mën naa ne fukki fan a ci des ñu dugg bésub màggal gi ana nan ngeen fas yéene euh, maanaam ci wàllu prestation boobu nan ngeen ko fas yéene dundale euh, ci bisu màggal gi euh, fële ci la Havre. waaw bu dee li jëm ci wàllu prestation daanaka bu ñu xoolee li jëm ci programme bi daanaka am na benn prestation bu ñu def ci suba gi mooy boo bés bi door a tàmbali rek nga am na li diggante bi ñuy toog ñi nga xam te ni yeneen dëkk lañuy la di ñëw diggante boobu ba bi ñu tàmbali dugg ci liggéey bi nga xam ne ci la ñuy jàng alxuraan yi ak xasida yi dana foofu am na benn prestation bu ñu fa def te it bu ñu demee it ba bis bi nga xam ne comme fi nga ay étudiants moo fi nekk ak ay liggéeykat daanaka bis bi duñ ko mën a fanaanee fanaan gu demee noonu. daanaka bu ñu demee ba nga xam ne léegi ñu waaj a tëj daal am na foofu beneen prestation bu ñu fa tënkaat it li jëm ci bis bi am yeneen ville yi ñoo kuréel yooyu ñoo ñoom lañ dugal ay prestation ci ci li nekk ci diggante bis bi waaye bu dee ci wàllu kuréel fédéral bi. ci li jëm ci màggal moom ñaari prestation yooyu lañ ci def muy bi tëjee bés bi ak bi koy tëj daal ci tënk daal mën na lool lañ lool noonu lañ ko jàppee ci li jëm ci prestation yi kuréel fédéral ci bis màggal gi. baax na jërëjëf euh, sëñ Saliou macha allah muy euh, lu am solo di ñaan rek suñ borom dooleel ñu kattanal ñu bañ a yegg ca te lépp loo xam ne it euh, liggéey nañ ko ci Serigne Touba nangul ñu ko bala ñoo jeex rek dañuy jàll ci ki nga xam ne. Euh, mooy euh, sëriñ Baba Niang moom nekk ci ci Touba Valenciennes euh, mu dikkal ñu rek ci ay tënk maanaam bésub màggal sëñ Baba ana nan la ci ab murit wara a taxawee ak lan mooy sababu màggal gi ndax mën nga ñu cee dikkal tuuti rek baaxee ñu ay kàddu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب احضرون سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد baraay barke Borom Tuuba xanaa dañuy jël suñuy kàddu rek ci nuyu Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké di ñaan suñu borom yàggul ko fi lool dolli ko wér dolli ko it kàttan ba naal bi yëpp yu mu naan ci liggéeyal sëriñ bi mu yàggalee ko na kawe njottam bu loolu weesoo it ñuy nuyu mbooloo mii nga xam ne ñoom lañ sekkal jotaay bi te man cee jiitali sunu jëwriñ sëriñ Moodu di ko sant bu baax ci teewaay bi at ci eh, liggéey bi di ñaan fii fi ñu bëgg yàgg ci liggéey sëriñ bi ci wàllum li nga xam ne ci la ñuy yëngu muy communication at at fësal ñu yegg fu kawe seen jot at mboolem waa Bichri TV yëpp bu ko defee kon ñu ngi jégaloot baaxit ci kàddu yi xam naa ne dana jafe lool ci ñun ndax mënewuñ ko waaye ñu jéem rek. jéem rek ngir jëmmi sëriñ bi xam naa it li ñu laaj moom ci wàllu màggal gi de e, mel na nit liñ ci xam sax bariwul waaye boo xoolee ci ci ci ci ci liñ teewlu daal li ko waral du lenn luul paspasu paspasu sëriñ bi ci xettali mbindeef yi ak ci dimbali leen ba ñëpp mucc loolee it boo xoolee dëgg-dëgg daal man na ne mooy mooy màggal gi te it sëñ bi sabab bi moom moo ko waxal boppam ndax moo ne sababu xaybati an allaha araada an anaali minhu jaaha wa an akuna an akuna shaafian li xawmi wa an akuna xaadiman fii daw mi nga xam ne kon loolee boo ko déggee lu leer la loo xam ne sëriñ bi moom li ko taxoon a jukk du lenn rek dul eh, nekk ajaram mu def yëpp mbindeef yëpp daal di mucc te it mu nekk jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dundam gi yëpp ci moom la ko jëmale te ci moom la ko jeexal bu delluwaatee ci ci cosaan boo xoolee eh, bisu màggal gi moom ñëpp xam nañ ko li muy commémorer du lenn lu dul bés bi nga xam ne moom la sëriñ bi tàmbali liggéey boobu muy bés bi nga xam ne moom la jóge euh, tuuba dem di wuy ji euh, nasaraan yi nga xam ne ñoo fi nekkoon jamono yooyu mu euh, daje woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te it bis boobu it bis la boo xam ne sëriñ bi moom moo joxe ndigal ci ñu ko ñu santale ko suñu borom ndax it wax nañ ni sëriñ bi de wax na ne bis boobu bu dikkee képp koo xam ne mbégteem sa mbëgg la rek nee na mi ngi lay woo ci nga santale ko suñu borom ci bis boobu te it bis boobu dafa am nu ko sëriñ bi daa dunde ndax it mm, jàng nañ ni sëriñ bi diir bu mu nekkee ci tukki bi de saa yi bés boobu del see rek dafay mel ni suñu borom daf daa gën a taral natt nattu yi nga xam ne moom la ko daa teg daf ko daa gën a taral di ko gën di taral muy mel ni daal da ko da ko daa dolli baax a baax ay ay natt waaye eh, bi bi bi sëriñ bi dellu ci ba. ba liggéey bi mel na ni e, mat na ci lam doon def ci yoonu géej gi bam bam nekkee njaareem su ma juumal mi ngi ñu ngi koy ñu ngi koy tënk ci atum 1921 sëriñ bi ci la njëkk wax ni ndax da doon xaar chaque at mu jot rek chaque at mu jot rek ndax mi ngi jugee ku ne xam ne ne mi ngi jógee ci tukki bi 1902 bi mu fi ñëwee it ku xam ne ne yóbbu nañ ko gànnaar bi mu fa jógee it e, jaar na e, Jolof ba ni mu ñëwee njaaree 1912 en résidence surveillée nga xam ne ci foofu la mën na ne fa la matale euh, ci Zahir euh, ak ak ak dundam waaye wax nañ ni sëriñ bi dafa mas a toog benn bés njaaree mm, bés bi yegg si muy bésug màggal gi comme ni ko xamee ci natt sëriñ bi toog di xaar di xaar maanaam natt yi nga xam ne suñu borom daf ko daa dolli ci bés boobu mu ñëw ci moom waaye ci bës boobu daal la yëg ni ba ba mu yegg see suñu borom daf koo xamal ni ne lépp lu na daa teg ci nattu de eh, eh, eh, tey jii teggil nañ la ko liggéey bi mën na sëkk daal li ci des mooy saa yi bés bi dellu seete say may dañ la koy fëral bu baax lépp loo xam ne moo taxoon ngay nga nga jug di ko dox daal day day gën di yokk di gën di fawxa ci ci looleet dañ wax ni ci la sëriñ bi woowee ñëpp daa da da daal leen koy biral comme ni ñu ko waxee nii daal leen gën a fonk loowaat bis bi mag ñëpp wax na leen bis bi neen ko fonk lool ndax lépp loo xam ne euh, doon naa ko liggéey de suñu borom euh, ci bés bii la ma ko la la la ma ko may ci la ma ko jàppandile ba wax na leen sax ni ngeen ko def mu mel ni ne tabaski ci yéen ba sax noonu ñu ngi wax ni ñenn ci mag ñi de dan daa dan daa génn sax naan naan naan tabaskiwaat di ko woo di ko woo bés bi. ba wax nañ sax ci sëñ bi ba ba mu déggee dafa waat daf ko waat mu ñëw dafa waat euh, ñi ko doon wax ñu ñëw mu xamal ne leen ni maanaam. bëggul ñu koy woowee tabaskiwaat balaa muy muy muy mel na luy wuute ak ak diine ci noonee sax la la la la waxee baatu màggal kon ñu xam ne baatu màggal gi wax nañ ni sëriñ bi moom moo ko njëkk a tudd kon mm, ci ci ci ci tënk daal mel na ni loolee moom moo moom mooy màggal gi loolee moom moo ko sabab comme ni ñu ko waxee li ko sabab du lenn lu dul xettali mbindéef yi ci ci ci ci passeport ci sëriñ bi. li ci desit xëy na duñ ci mënee ñëw comme ni nga ko waxee ana nan la ñu war a dunde màggal gi nan lañ ko war a waajale loole it euh, mm, ci niñ ko xamee ci sëriñ bi ay digleem ak ci njabootam mën na ne daawuñ dañ fu mu toll dañu fonkloo màggal gi ndax màggal gi comme niñ ko xamee bu njëkk kon ne xam ne ne murid yëpp dañ daa nekk fa nekk rek ku nekk di doxal màggal gi fa nga nekk ba ci jamono sëriñ Fallu euh, ci la wootee ñëpp wuy si Tuuba ñu bokk dundal ko ba tey jii loolee moom moo moom moo sax moom mooy wéy waaye niñ koy niñ ko war a dundalee woon ci ab taalibe du lenn lool ci li sëriñ bëggoon ndax nit kat boo boo boo nekkee ci ay mbiram dangay xool la nga xam ne moom la bëggoon nga nga nekk ci ak moom te sëñ bi noonu rek ko diglee muy ci njàngum alxuraan sant la suñu borom sant sant la ko suñu borom bis ci bis boobu ci njàngum alxuraan njàngum xasida waaye it mu dolli ci bernde te loole yaakaar naa it euh, boo xoolee sax euh, li sëñ Modou doon leeral sànq mooy fédération bi nga xam ne ci leen bokk tënku dégg nañ wax ji bu baax te it ñu ngi ciy def seen kéem kattan ni mu ko leeral sànq euh, bokk na ci ni ñuy doxee jëm ci bés bi nañ koy waajale mooy bi weeru safar teroo ba ci bisu màggal gi bés bés bu set danaan jàng ab kaamil àjjal ko sëriñ bi ci ci ci weeru weeru yi di weeru safar ba ci bés bi it ñu daat koy wóyale noonu te it noo ne dëkk bu nekk rek. di di di ko waajale màggal gi ndax boo xoolee fii ci Valenciennes comme fi la nekk boo xoolee en interne sax chaque guddi ajjuma daan wàcce kaamil bu bokkul ak bu bu fédération bi di ko def adja sëriñ bi te it xasida it fu mu toll ñu ngi ciy nekk di ko dundal bu baax a baax suñu kéem kattan ci weeru safar gi te it noonee rek la ko la ko sëriñ bi e, digle woon ñu ngi ciy ñu ngi ciy jëm suñu kéem kattan daal di ci di di di ci bay suñu waar bu baax a baax a baax ci ku ne xam ne eh, ci bis màggal gi noonu rek lañ koy lañ koy defee sànq jëwriñ ñëw na ci jëwriñ sañ mooto ba wax ni eh, fi mu ne nii moom wàllum mm, finance bi yëpp daanaka lépp lépp lépp yem na ngir loolee mën a mate te it loolee ci ndigalu sëriñ bi lañ koy defee ndax ku xam ne ne sëriñ bi ba mu déglee màggal gi daf ne lu ci waay man na ko ci def ndax dafa waxoon ni xeebul eh, dafa waxoon ni sax ginaar ba ci gileem te loolee mm, lim ci jublu mooy xeebul Euh, ginaar te it nawul ak gileem kon lépp loo xam ne nit mën na ko ci màggal gi rek moom na moom na ko ci def te xam ne amul benn bës boo xam ne gën naa rëy ci ñun ñi euh, murid yi amul benn amul beneen bés boo xam ne gën naa ci màggal ñun ñii di ay murid ay taalibe te it loolee euh, sëriñ sëriñ Saliou Mbacké ci làmmiñam jottale na ko ne sëriñ bi waxoon na ne da ñaar nit bu nekkee kii di fonk màggal gi keneen kii di ko xaw a woyofal nee na ki koy woyofal de du deñ di gis. ki koy fonk ni mu koy rawee saa su ne du dañ di gis ki koy fonk ni mu koy rawee saa su ne te it képp koo xam ne màggal gi ñëw na de nga dundal ko ci sa ñaq ak sa man mën balaa déwén da nga yëg ak yokk bu rëy ci ci ci ci ci ci sa bopp loolee moom sikkiwuñ ko te it lu wër la bokk na ci ci tawféexu màggal gi moom moom da ngay dégg ñu koy koy nettali ci ci ci ci ci yoon wi ni ajjana sax amul amul amul bés waaye de saa yi bésu màggal ñëwee. dana taw féexe ba waa àjjana sax dana jëng ne bis bi mooy bésub màggal kon loole yaakaar naa day day doy sëkk rek ñu wax ci taw féex gi gi at at at ngëneel gi nga xam ne bés bi màggal na ko te it dara sax moom bu dul dara nekk sax amul dara ñun ñi ay taalibi moom bu ko sëriñ bi diglee rek ñun daf ña war a gënal lu ne waaw gënal ñu lu ne ñu def ci lépp lu mën at lu mënul ndax ndigal li ko sëriñ bi digle te it ndigal lu wér pëng la ne sëriñ bi moo ko digle waaw yaakaar naa ne ñun fi ñu war a toll moom mooy fi nga xam seriñ fa la bi euh, tegoon sangam boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko suñu borom ci ci ci ci œuvre ngir ñoom ba ba ba tey jii ñun foofee la ñu war a teg suñu tànk foofee la ñu war a jéem a doxee foofee la ñu war a teg sëriñ bi ndax it ñu ngi koy wax sàng ci xasida gi ñu doon jàng rek bi muxaddimat am na sëriñ bi fi mu tegoon bopp fi mu tolloon moom moom waxoon na yéeneem xam-xamam moom moom loo dara niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila shukri nga xam ne kon maanaam yéeneem xam-xamam ak at at yëngu-yëngoom ak ruuxam ak jëmmam yëpp daf ko joxoon sallallahu alayhi wa sallam te loolee foofu mu tegoon mm, tànkam foofee mu doon doxe moo waral tawfeex gi ñu am kon ñun ñit war nañoo jéem a euh, tegu foofu donte da dana jafe ci ñun waaye ñu a teg foofu sëriñ bi te xam ne loolee mooy tawfeex gi ci ñun ci noonee lañuy ñuy jariñoo xam naa ñu ngi tuubaat bu baax a baax ci ci ci kàddu yi daanaka dañ koo jékkul dañ ko mënewul waaye loolee lañ mm, teewal woon ci lu ma doon a def wax ci màggal gi rek ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax. macha allah jërëjëf euh, sëriñ Baba mel na ni wax dëgg kàddu yi am na solo euh, tënk nga ko ci xam-xam ndax noonu la ko sëriñ bi bëggee xanaa di ñaan rek euh, di dolli di ñaan saa su ne suñu borom baaxee ñu taw feexe ñu ba loolee nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci ñun namm ko ci ñun ñu nit ñu matale ko te lépp it ñu defaat ko addi Cheikhul Khadim lii moo doonoon li nga xam ne moo doonoon waajtaay wi nga xam ne ma Mafatul Bichri TV ñëwoon na fii ci Valenciennes ngir ànd ceeg fédération bi nga xam ne mooy fédération nord de la France ñu leen koy fàttali nga xam ne Touba Lille moo ko seq ak Touba Valenciennes Touba Caen Touba Le Havre Touba Rouen ak Touba Amiens ñoom ñëpp ñu doon wenn say ngir màgg waajal bés bi nga xam ne mooy màggal di le 18 safar ñu fas yéene ko amal le 8. novembre fële ci la Havre euh, bala ñu tëj rek incha allah dañuy bàyyi euh, ki nga xam ne mooy Serigne El Hadj ak euh, kuréel gi rek ak mbooloo mi yëpp ñu baax ñu tuuti rek bala ñoo yëkkati jataay bi bisimilah. salluha eh, laka macha allah kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, lii moo doonoon waajtaayu màggal yi nga xam ne moom lañ jël si woon fii ci Touba Valenciennes ñu leen di fàttali ni Touba Valenciennes euh, fédération noor bi daje fi ngir waajal bés boobu nga xam ne ñu ngi koy amal le 8 novembre 2017 fële ci Touba Le Havre euh, di ñaan suñu borom may ñu kattan ak wér ba ñu yegg ci ak jàmm. di sant it eh, ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk eh, ñu dalal ñu ndax eh, ñu ngi leen di fàttali ni wax dëgg fa yàlla boroomi pas-pas lañ borom pasteef lañ ndax ku nekk xam na ni dëkk yi nga xam ne ñoo seq fédération bi. li ci ëpp daanaka ay ville universitaire lañ maanaam daanaka ay étudiants rek ñoo ci nekk ndax barab bi ñu nekk tey mi ngi ci résidence universitaire bi nga xam ne moo nekk fii ci la Havre di wane rek pas-pas boobu nga xam ne ay ndaw lañ ay tànk lañ eh, toll ci jàng ku nekk xam na ni eh, Europe ni mu mel jamono yi tey di weekend nga xam ne ci lu ëpp ci la ñuy profité ngir def job étudiant nga xam ne loolu moo leen di dimbali ci yu bari loolu lépp ñu jaayante ko ngir ñëw daje fii eh, di waajal bés boobu nga xam ne ni ko eh, léegi eh, nga xam ne Serigne Baba leeral na ko muy bés boo xam ne mooy suñu lépp tey lu ñu am. bés bi ñu ko may nu ñu mel bés bi ñu ko may ba tax na ku ci nekk war na nga jaayante ba def ci loo man ak loo mënut ngir rek eh, lii nga xam ne Cheikhul Khadim moom la ci bëgg ngir ñu santale ko suñu borom te yaakaar naa ne képp koo xam ne kii jël nga bisub lëmm di ci dundal lenn lu sant suñu borom say sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di jàng alquran di jàng xasida foog naa ne nit mënta def lu gën a kawe loolu ci bés. kon yaakaar naa ne sëriñ bi dimbali ñu moo tax mu woote màggal gi kon képp koo xam ne kii jaayante nga ci rek lépp loo ci jëf yàlla na la ko sëriñ bi nangul ndax loolu itam dafay lu jar a leeral ndax sëriñ bi euh, jóg ne yaa ngi koy liggéeyal yomb na waaye nag euh, liggéey bi mu nangu jafe na kon yal nañu suñu borom tawféexal ba liggéey bi duñ ci gis suñ bopp duñu ci yaakaar ne lenn lañ ci ngir sëriñ bi nangul ñu ko te lépp it ñu jëlaat ko def ko addiyee Cheikhul Khadim kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di sant bu baax it kii nga xam ne mooy Serigne Moustapha Thiam nga xam ne moom daanaka moo mooy bunt bi ndax eh, moo ñu taxawal fii di eh, Valenciennes ci nord de la France muy ma Mafaatihul Bichri TV taxawal ñu fi ba liggéey bi mu yombal ñu ko ba ñu mën fee dajee mën a def émission bi kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fas yéene it comme ni ñu ko waxee léegi rek ànd ak yéen ci màggal gi. Euh, dina am euh, yu bari yoo xam ne yi dinañ ko mën a jël jàllale ko itam comme ni ko mu fàtte Mofatou Bichri TV di defee fépp ci àdduna bi muy États-Unis muy Europe muy ci Sénégal nga xam ne fépp foo xam ne fii euh, murid yaa ngi koy daje di màggal bés bi rek Mofatou Bichri TV dina fa taxaw ngir fësal liggéey boobu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.